Nine koo xam ne foofu lay jëm yaatu gi itam àddina sépp la daj te ñi koy def it ñu wuute lañ la leen koy tax a def wuute na ñu na am na ñu koy def ñooñ ay benn benn lañuy ñuy am na ñu koy def ñooñ ay mbooloo la ñuy doon am na ñu koy def ñooñ sax ay réew la ñuy kon ay benn benn da leen di jëfandikoo doole. ay mbooloo danañ ci jëfandikoo doole ci jamono jii mu waaye nag ñi jëfandikoo doole ci turu lislaam ñoom la seen mbir gën siiw ci jamono ji ndax xëy na jumtukaay yi siiwal ak a tas li xew ñooñu lañ gën a jox yitte jamono jii nu toll. xanaa bi sax dëgg-dëgg it dañ cay gën a bari jamono ji ñu toll ñii jëfandikoo doole ci turu lislaam jamono ji ñu toll mën naa am dañoo gën a bari ci ñii jëfandikoo doole buñ gën a bari it moom ñii siiwal li xew ñoom lañ gën a jox yitte ba tax na kon seen mbir moo ci gën a siiw ci jamono ji ñu toll loolu yi tax tax na ba àddina sépp jëme seen yitte ci loolu mu jaaxal leen ñépp bëgg di ci sàkk pexe àddina sépp di sàkk pexe xam naa loolu taxoon ba euh, daayira bi tànn tomb boobu ngir nu waxtaane ko xëy na mu mën a bokk ci euh, lu ñuy mën a jox waa àddina ñu mën cee sukkandiku xëy na ba mën a am pexe moomu ñépp boo bëgg ci ñetti anam yooyu kon lay jëm yan anam lay ame lan moo ko sabab lan moo ko mën a saafara bala nu dugg nag ci yan anam lay amee dana laaj nu xam dëgg-dëgg lu jublu ci jëfandikoo doole ci turu lislaam li jublu ci jëfandikoo doole ci turu mooy nit walla mbooloo bu fekkee day jëfandikoo doole ci wax wala ci jëf ñaari mbaam xëy na baatu wolof yi du leer lool buñ ko waxee ci wax waaye bu dee violence buñ ne violence ci wax xam nañ ne am na bu doon baatu arab bi buñ ne onf ci wax xam nañ ne am na xëy nag ku ne jëfandikoo doole ci wax ci wolof moom mën naa am du leere noonu waaye danañ xam danañ xam li ci jublu kon dana am ci wax dana am ci jëf képp kuy jëfandikoo doole kon ci wax wala ci jëf muxtaar ne lislaam moo tax mu di ko def mooy lislaam moo ko ko digal loolu dañu naan jëfandikoo doole la ci turu lislaam walla lislaam moo ko ko may moo ko ko digal wala moo ko ko may walla sax koo xam ne day jëfandikoo doole ngir ne lislaam lay taxawal lislaam day dëgëral ñaari anam yooyu jege nañ waaye duñ lenn kii jëfandikoo doole ngir ne lislaam la bëgg a taxawal la bëgg samp la bëgg a dëgëral la bëgg a aar ak kuy jëfandikoo doole ngir wax ne lislaam ko ko sant wala lislaam moo ko ko may ñaar yépp dañ koy dugal ci jëfandikoo doole ci turu lislaam mooy ki koy def moom lislaam la wéeru ci lislaam la wéeru bi muy jëfandikoo doole jooju moo xam nag nangul nañ ko ne lan ca wéeru lu wér la wala nanguluñ ko ko waaye moom moom ci la wéeru loolu ñu tuddee jëfandikoo doole ci nguuru nguuru lislaam anam ay anam nag yu wuute lay amee anam yi itam mën nañ cee ràññee ñaari anam yu mag genn gi dañ naan anam la bu jaaru bu jaar anam la goog jëfandikoo ca doole ci turu lislaam jaadu na yoon nangu na ko itam kon am na anam gu jaadu gu yoon nangu ak anam gu jaaduwul yoon nanguwu ko ñaari anam yooyu kon ñooy ñaari anam yu mag yi anam gi jaadu te yoon nangu ko mooy li ñuy tuddee jihaad jihaad jihaad dana amee ci jëfandikoo doole dana amee itam ci lu dul jëfandikoo doole waaye bu amee ci jëfandikoo doole mën nañ koo nangu mooy am na jihaad joj jëfandikoo doole lay doon te nangu lay doon ju jaadu lay doon moo xam ci wax la moo xam ci jëf la alquran ci boppam moy wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla ci wax ak mom nan ko naga jaar ak ak nafiq naga jaar ak yefer ak nafiq ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alayhim waghluz alayhim joju mom lañuy mëna firé jëfëndiko doole moy naga tar naga tar ci sen kaw foofu nag mën naa doon wax waxañ ci sax ndax naafeq yi xam nañ ne digaluñ ko mu xeex ak ñoom digaluñ ko mu ak ñoom kon bu leen kuy jiyaar ak ñoom tey tar loolu ci wax lay doon kon ci jaaram ci wax mën na caa tar tar googee mën nañ ko tudde jëfandikoo doole ci wax la nag mi ngi waxaat feneen yonente bi itam naan ko fala tuti lkafirina wa jahidhum bihi jihaadan kabira na nga jaar ak yéefar yi na nga ñoom ci alquran ku ne xam na ne alquran buñ koy jiyaare kon doonul jëf waaye wax lay doon mooy alquran ji yàlla di wàcce di ci wax li ñu nekkee te mu jubadi day leen ko àggee la ca tar lépp itam day leen ko àggee kon mooy nga cay jihaad di ca xeex ak ñoom ci alquran ji kon jihaad ci wax alquran ci boppam moo ko moo ko diglee moo ko moo ko mayee donte jihaad jooju tar lay doon duñ mën a tudde kon jëfandikoo doole la waaye noonu la diglee itam jihaad ci wax joj du doon ju tar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa jaadilhum billati hiya ahsan kon loolu du doon ak tar du ca am waaye léeg-léeg mu laaj ak tar ci wax bu laajee tar ci wax loola dañ naan jëfandikoo doole lay doon ci wax te mu doon lu jaadu mu doon lu yoon maye waaye ci jëf itam ci jëf jëfandikoo doole ci jëf dana doon lu jaadu lu yoon maye ku ne xam na ne jullit ñi dañ leen daan buntu xatal di leen lor ba ñu demee ba gàddaay la leen yàlla doora may ñu ñu aar seen bopp ñu fekk seen bopp udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir kon foofa dañ leen faa may ñu jëfandikoo doole ngir aar seen bopp loola jëfandikoo doole la lool jëfandikoo doole la joj ju jaaru ju ñu may la itam yonent bi itam ne xam na jiyaare ngànnaay solo si mu am ci lislaam bu jotee liñ ci xam ci ay ñépp a ko bokk xam kon dañuy xam ne lu jaadu la lu yoon maye la muy jëfandikoo doole ci jëf bu fekkee lu ko laaj jot na yoon tamit a ngi wax ne koo xam ne day xeex ngir kàddug yàlla féete kaw kookee mooy xeex ci yoonu yàlla mu wax na it kuy aar boppam kuy aar boppam bañ rey ko ca ak kuy aar alalam bañ rey ko ca ak kuy aar ab deram bañ rey ko ca ñoo ñëpp àttab kuy jiyaar lañ yore mooy li ñu tuddee shahid shahid moom lañuy ñuy doon loolu lépp dañ ciy dégg ne kon jëfandikoo doole ci jëf dana doon lu jaaru dana doon lu yoon maye kon anam gu njëkk gi mooy anam gi jaadu te yoon maye ko mooy liy amee ci jihaad muy jihaad jihaad nag daa am ay sart am itam lu koy tënk mooy bu amee ci sart ya te sart ya daje ca la koy tënk daje ca jihaad joojee la ñuy wax ne mooy jëfandikoo doole bu jaaru jëfandikoo doole bu yoonu maye waaye bu fekkee sart ya daje mu la ko war tënk tënku ko bu boobaa dees ko tuddee jëfandikoo doole bu yoonu maye bu ko borom tuddee jihaar itam dëgg dëgg du doon jihaar yoo xam ne yu yàlla maye kon am na jëfandikoo doole yu ñu maye ci wax ak ci jëf am na anam gi ci des nag mooy jëfandikoo doole bu ñu maye wut bu jaaru wut moo xam ci wax la moom itam moo xam ci jëf mën nañ cee joxe misaal ci wax ci wax ak itam ci jëf bu dee ci wax bokk na ci jëfandikoo doole yi ñuy jëfandikoo doole ci turu lislaam te muy wax mooy fekk mbir moom wuute mën na ca am ci diggante jullit ñi wuute mën na caa am te wuute ga dëgg-dëgg kenn mënut a dogu ne lam ca jàpp rekk a lu mel noonu boroom xam-xam yi dañuy wax ne kenn waru caa diingat moroom ja mooy bu ñu wuutee ci mbir te mbir moomu kenn ci ñu wuute mënut a dogu ci ne li wax rekk a boobaa warta diingat moroom ja war naa jàpp lim jàpp rek bàyyi ka ca des mu jàpp lam jàpp mu bañ koo diingat bu ci diingat amee nag dañ koy jàppe jëfandikoo doole violence lay doon mooy wuute gu mel noonu ba noppi nga naan ci wuuteeg man dafa jàtt wala dafa wàcc yoon wala dafa juum wala dafa xamul xeeti waxin yooyu yëpp jëfandikoo doole la ci wax muy fu fu wuute am te wuute ko doonul fu kenn mën a dogoo ne moom la mu wax lekk kay dëgg loolu rekk a wér kon bu dii nga tey moroom ja rek wax ne dafa jàtt walla dafa juum walla dafa xamul yooyu yëpp bu ko waxee rek manees na ko jàppee jëfandikoo doole ci wax loolu ak anam la ci mooy kon di àtte koo wuuteel te la ngeen wuutee doonul lu kenn mën a dogu ne moom rek ci lan ca wax mooy lu wér ñu di ko àtte àtte yu mel noonu yu diise noonu naan dafa jàdd wala dafa juum wala li nekk wérut waaye am na lu gën a diisati loolu itam te mooy àgg sax ba di xeeb ki nga wuuteel wuute ku demee noonu wuute gu demee noonu koo ci wuuteel ba noppi di ko xeeb di wax na nekkul ci dara loolu itam jëfandikoo doole la ci wax te muy jëfandikoo doole gu jaaduwul jëfandikoo doole gu yoon nanguwul wuute ka nga wuuteel te la ngeen wuute kenn mënta dogu ci ne lam ca jàpp mooy moom rek ka wér ba noppi ngay xeeb ka nga wuuteel ca loola ak di di ko wax wax ju rafetul di ko suufeel di wane la yow rek yaa ne ci dëgg moom mi nga wutal nekkul ci dëgg yooyu euh, jëfandikoo doole ci wax te muy jëfandikoo doole bu jaaduwul bu yoon nanguwul am na lu gën a diis loolu mooy àgg sax ci di ko tuddee kàccoor kàccoor ci nga wuuteel rek te wuute nga demee nii nu ko waxee nga àgg ci di ko tudde kàccoor wala àgg sax ci di ko tudde bokkaalekat wala àgg ci di ko tudde ab yéefar yooyu yëpp jëfandikoo doole la ci wax te muy jëfandikoo doole goo xam ne jaaruwul goo xam ne yoon mayewu ko yoon nanguwu yooyu kon jëfandikoo doole la ci wax jëfandikoo doole ci jëf nag jëfandikoo doole bu jaaduwul bu yoon nanguwul ci jëf bokk na ci nit kuy të kuy të kilifa të të kilifa mooy laaj topp kilifa loolu jëfandikoo doole lañ ko mën a jàppe ci jëf te muy lu lu yoon nanguwul loolu yi am na amna gelen geneen bu gën ta moy te gannaay nak ngànnaay gannaay jëfandikoo gannaay jëfandikoo jëmi ko ki nga wutel ki nga wuuteel ak mom pass pass wala ak mom xalaat wala ak mom gisil tax nga jël gannaay jëmi ko ko lol tam jëfandikoo doole la lol jaaduwul te it yoon nanguwu kooku day jëfandikoo doole jëme ko ci mu wuteel waaye moom rek la ko jëme sax nag moom kii la jàpp ne moom la wuteel moom moom la jëmale doole ji muy jëfandikoo ngànnaay ngànnaayam kii mu wuteel la ko jëme loolu jaaduwul loolu yoon nanguwu ko waaye da féetewaat kaw loolu lépp mooy nag kuy jëfandikoo doole jëfandikoo ngànnaay te sax far ràññalewut ki mu koy jëme pour ñi mu koy jëme ràññalewuleen da koy jëme ñépp rek ñëpp nga xam duñ mën a wax ne ñi mu wuteel kese kese la ko jëme waaye da koy jëme ñëpp ba tax na daanaka day mel ni kon daa wuuteeg ñëpp loolu moom la ñuy tuddee ci jamono jii terrorisme terrorisme mooy ngi jëfandikoo ngànnaay te jëme ko ñëpp mooy xàjjalewut ràññalewut tànnut ñu ngi koy jëme ak ñu ngi ko dul jëme da koy jëme ñëpp loolu moo féete kaw ci jëfandikoo ngànnaay ci anam goo xam ne jaaduwul te yoon nangu muy terroriste kon yu yëpp ay anam la yooyu des na ci jëfandikoo ngànnaay yii ci wax la yii ci jëf la waaye yooyu yëpp amu ci lenn lu jaadu amu ci lenn lu yoon nangu li ci jaadu yoon nangu ko ci mooy rek li ñuy tuddee jiyaar bu fekkee sart ya daje na ca bu fekkee itam tënku na ci li mu war a tënku bu génnee loola rek moo xam ci wax la moo xam ci jëf la du doon lu jaadu du doon lu yoon nangu kon loolu mënees naa wax ne mooy anam yi nga xam ne jëfandikoo doole dana ci am li koy waral nag bu dee jëfandikoo doole gi jaadu te yoon nangu ko li koy waral moom ñaar ñaar kon mooy jihaad jihaad ci ngànnaay ngànnaay jihaad ci ngànnaay moom ñaar a koy waral ñaar a koy sabab lenn li mooy di aaru aaru aaru mooy ñu song la ngay aar sa bopp loolu dana may jullit bi jëfandikoo gànnaay ngir aar boppam bu ko noonu songee dana sañ a jëfandikoo doole dana sañ a jëfandikoo gànnaay ngir aar boppam kon aaru mooy sabab bi njëkk buy tax ñu sañ a def jihaad mooy jëfandikoo doole wala jëfandikoo gànnaay laay ji ñu léegi bi yàlla di may jullit ñi ñu aar seen bopp bay firndeel ne kon aar aar aar nit ki di aar boppam jullit bi di aar boppam jullit ñi di aar seen bopp moo jiitu ci li maye jaare gànnaay leneen li mooy li ñuy tuddee aar la moom itam waaye aaru li wolof di wax euh, xoddiku bala ngaa lakkale xoddiku bala ngaa lakkale ah bu njëkk gi moom dañ lay song ba noppi dañuy jóg jëm si ceew nga aar sa bopp gaye nag jógaguñ waaye da ngay xam ne ña ngi lay waajal kalay lay waajal ngir jóg jëm si ceew nag nga gaaw bala moo jekk nga jëflanteeg moom loolu lañuy ñuy euh, ci jamono jii li ñuy tuddee préventif dañ naan frappe préventive nit ñaa koy def Euh, préventif mooy loo xam ne kon songaguñ la waaye nag da ngaa séentu ne ñi ngi lay waaj a song nga gaaw bala moo jekk nga gaaw jëflanteeg moom ñaar yooyu ñooy may jullit ñi ñu jëfandikoo ngànnaay muy ñu song leen ba noppi ñu yaar seen bopp walla ñu xam ne ñi ngi leen di waaj a song ñi ngi leen di fexeel ngir song leen ñu jëkëntu wala jëkënte ka di bëgg som ba duñ ko may fu muy jekke mbooleem jëfandikoo doole ñu ma am ci lislaam euh, jamono yonente bi ak jamono sahaba yi fofu rek la duggoon ci ñaar yooyu rek la duggoon dal ñu song leen ba nopi ñi aaru wala ñu leen di fexel ñu jëkënte ñi di fexel ba duñ duñ leen may ñu jëk kon ñaar ñaar yooyu lañ jàpp ne ñooy maye jëfandikoo gànnaay jëfandikoo doole kon sabab bi sabab sababu jëfandikoo doole ci anam bu yoon maye ci anam gu jaadu ñaari sabab yooyu lañ jàpp ne moo ci am bu dee jëfandikoo doole nag ci anam bu jaaduwul te yoon mayewu ko moom it am na ay sabab am na ay sabab yu bari sabab yi manes na ko jàppe ñaari wal genn wal gi moy sabab yo xam ci jëmmi nit ki lay delu nit ki koy jëfëndiko sabab bi ci mom la delu ak sabab yo xam delu wul ci mom waye ci ñeneen ñi la delu kon sababu jëk bi mom la taxol sabab bi ci dess nak taxawut ak mom waye ci ñi mi jëflantel la nek bu dé sabab bi taxok nit ba mi jëfëndiko doole ci anam gu yoon mayewut ci anam gu jaaduwut ñaar ñaar lañ ci gis ñaar yoo xam ne daal mën naa jur loolu mën naa jur nit dem ba àgg ci jëfandikoo doole ci anam gu yoon mayewut bi ci njëkk mooy nit ki ci boppam doon nit ku ëppal dafa am nit koo xam dafa ëppal day kuy ëppal lu muy dugg da cay ëppal bu duggee ci wàllu ngëmit da cay ëppal geneen wàllu gu mu nekkoon tam da cay ëppal day ku ëppal rek ku ëppal li ñuy wax ku taral koo xam dafa tar day ëppal day am ñu bindoo noonu nit ñi bu bindoo noonu mën naa doon kuy jëfandikoo ngànnaay kuy jëfandikoo doole ci anam bu jaaduwul bu yoon nanguwut waaye leneen li it sabab yi dellu ci nit ki mooy ak xamam ak xamam lislaam des ak xamam lislaam des ko ak xamam l'islam des lola man na tax ñu duggal ko ñu duggal ko muy jëfandikoo doole ci anam bu wul ci lu yoon nanguwut ki taral mom man na ja duggal bopam ki nga xamne ak taral ak ëppal moo ko ci duggal mom man na ja duggal bopam ndax da bindo taral da bindo ëppal waye ki ak xamam des mom dañ ko ciy dugal te ñi ñi koy ñi koy ñi doole ñaar yooyu rek la ki ci dugal boppam ak ki ci dugal ki ci dugal boppam moom mën naa doon ku taral donte xam na lislaam sax waaye ak taralam mooy tax ba wàll nga gën a tar rek lay jëm ndax day ku taral day ku tar day ku ëppal ci xam lislaam des nag kooku dañ koy mën a yóbbaale ba dugal ko ci loolu euh, du doon lu jaaru du doon lu yoon nangu ñaari sabab yooyu ñooy nekk ci nit ci yuy tax mu mën a dem bay jëfandikoo doole ci anam bu jaaduwul sabab yi nga xam ne nag du nekk ci moom waaye day nekk ci ñi mu seqal nga xam ne kon day mel ne moom jëfandikoo dooleem day mel ne tontu lay doon tontu li ñuy tuddee réaction raddu fian day mel ne tontu lay doon rawatina bu fekkee moom ñaari sabab yooyu ñu waxoon mi ngi ci moom doon na ku ëppal ku kuy taral walla mu doon ku ak xamam lislaam des ba noppi nag sabab yii di ñëw am booba mën naa jëfandikoo doole sabab yooyu nag nga xam ne jógewul ci moom waaye ci ñi mu nekkal la jóge te mën a tax muy tont ci tontoom nag mu cee jëfandikoo doole sabab yooyu bokk na ci bu ak ak ak ndëng ak ndëng ak ndëng bu tasaaroo tasaaroo ndëng tasaaroo ba daanaka doonatul lu ñuy ñaawlu ba mel na lu jaaru ak ndëng bu tasaaroo ci anam googu dana am ñooñ ñu taral ñooñ nañ koy tontoo mën na leen yóbbee ñuy jëfandikoo doole ngir bëgg fee jëlé ndëng googu dañu faral di wax né bu mbir amé mu jaaduwul buñ ko bëggé safara safara sey mën na dem ba jaado di ko momit ndax dañ naan fu mu ci jaado di ko rek da koy safara momit day dëgëre non ba tax mën na ag momit ci ak jaado di ko ci walu ga kon dëng bu uppé tasaaroo ñu seetaan ko ba kenn du ci wax mën naa tax ba ñi taral ñoom niñ koy tontoo mën nañoo dem ba ëppal ñoom it anam gañ koy tontoo ba àgg ci di jëfandikoo doole rek di jëfandikoo ngànnaay loolu bokk na ci sabab yi nga xam ne nekkuñ ci moom waaye ci mën nañoo ci société bi lay nekk bokk na ci sabab yooyu itam xatal bu ñuy xatal nit nit des na ko xatal xatal ko mooy bañ koo may jàmm bañ koo may mu dunde nam bëgge nam bëgg a bañ koo may mu dunde nam xalaate xatal ko bañ koo may mu wane xalaatam xatal googu buñ ko xatalee nit bu yàlla dogalee mu doon ku ëppal wala ku taral wala ku ak xamam lislaam des xatal googee tontu la mu koy tontu moom it mën naa dem ba tax mu jëfandikoo doole muy xatal xatal bu ñuy xatal euh, nit walla mbooloo xatal leen ba duñ leen may ñu mën a dund nañ bëgg dunde duñ leen may ñuy feeñal seeni xalaat loola mën naa tax ñu jëfandikoo doole ñoom itam yooyu yépp luy am la lu dëppoo la ak ni yàlla bindee nit itam lu dëppoo la ak ni yàlla bindee nit nit léeg-léeg boo ko tëjee day mujj rek bu jaar fen ak doole ndax munta nangu ñu koy tëji noonu kon genn xatal gi tam bokk na ci liy waral nit di jëfandikoo doole di jëfandikoo ngànnaay ci anam bu jaaduwul bokk na ci it luñ mën tudde nag ak jeng jeng ñàkk maanu ñàkk maanu ko ñenn ñu am doole danañ ko ñàkk maanu bu ci jamono jii bu neexee nu wax ne réew yi tubaab yi li ñuy tuddee réew yi tubaab yi seenu ñàkk bokk na ci li jur jëfandikoo doole jëfandikoo ngànnaay ci anam bu jaaduwul ñàkk a gi li ko gën a fésal nag ci taxawaayu tubaab yi ñoom ci jullit ñi ñàkk a maandu ci seen digg ak jullit ñi li ko gën a mooy li ñu tuddee mbirum Israël wala mbirum Palestine mbirum Palestine ñàkk a maandu gi ci tubaab yi loolu am na ñu yóbbee ñuy jëfandikoo ngànnaay jëfandikoo doole euh, ndax ñàkk a maandu googu dajanteeg ñoom xëy na ñu doon ñu taral wala ñu doon ñu seenoon xam lislaam des na ñàkk a maandu googee am na ñu yóbbee ñu dugg ci jëfandikoo ñoom itam ngànnaay. leneen lu bokk ci lu yóbbe ñenn ñu jëfandikoo ngànnaay itam mooy tooñ tooñ boo xam ne moom it dañ koo jàpp moo xam wér moo xam wérut waaye jàpp nañ ne moom réewi tubaab dañ leen di tooñ am nañu jàpp ne réewi tubaab dañuy tooñ réewi jullit tooñ gi ñu ngi koy firee not gi ñu leen di not wala not gi ñu not seeni njiit ba di leen def loolu luñ lañ bëgg am na ñuñ loolu duñ mënuñ koo muñ mënuñ koo muñ te seenu ñàkk muñ ña koy feeñale ci jëfandikoo ngànnaay kon loola la ko sab mën naa am sabab bu nekk ci bitti la dajeeg sabab bu ne ci biir bi ne ci biir mooy moom daa bindoo doon ku taral wala doon ku ëppal wala doon ku xamam diine des sabab beneen jóge ci biir dolli bu ci nag muy tooñ bu mu gis ne réew yaa ngi koy tooñ réew yu tubaab yi ñu ngi koy tooñ réew yu jullit yi loolu tax muy jëfandikoo ngànnaay kon sabab yi tax nit jëfandikoo ngànnaay ci anam gu jaaduwul bari na yooyu ñu tudd yépp ci lañ du ñàkk yeneen itam waaye yi moom jàpp na ne ci sabab yi gën a fës lañ bokk bu nu xamee nag yan anam lay feeñ xam itam lan moko ko sabab dana ba mu xam lu ko meuna mën a saafara jëfandikoo gànnaay jëfandikoo doole ko doole ci anam bu jaadu wut ndax anam gi jaadu mom du lu ñi safa la ba julit mom du ko saafara bopp manam julit mom du defi pexe ngir jihad ba ñam ndax jihad moy anam gi jaadu ci ko gannaay ak ko doole julit du defi pexe ngir jihad ba a amati waye nak julit mom warna def pexe mom kudul julit ñom ñep war nañu def pexe mom ba jëfandikoo gannaay ci anam gu jaaduwul du amat kon anam googu la anam gi jaaduwul la ñuy wutal safar waye anam gi jaadu non lu ko wutal safar ndax do japp ne dafa jaadu lu jaadu kenn du ko jëm dindi kon anam gi jaaduwul safara japp nañ ne ñing koy jëlé rek ci sabab ci sabab yi ngir li sabab bok bëggé bëggee saafara ca sabab ya ngay dem muy li tudd ci sabab lepp buñ fexee ba saafara sabab sabab sa rek ngir ma dañ sabab yi tuddon nañ ci e, ñaka xam dëgg-dëgg l'islam ñak ko xam xam bu xam dëgg-dëgg kon bokku na ci ci fini ko ngànnaay ci anam bu jaaduwul fexe ba yaatal xamuk lislaam ci biir nit ñi mooy nit ñi xam lislaam dëgg-dëgg jullit ñi xam dëgg dëggi lislaam lu nit gën a xam lislaam rek mën a gën a sori gën a sori jëfandikoo doole ci anam bu jaadoo ndax lu mu gën a xam lislaam day gën a xam ne nit ñépp mënuñoo dëppoo lu mu gën a xam lislaam gën a xam loolu lu mu gën a xam loolu gën a mën a xajoo xajoo mooy li ñuy tuddee tolérance mën a xajoo lu nit gën a xam ne nit ñi mënuñoo dëppoo rek dana dana mën a xajoo lu mu gën a xam ne wuute gi am ci nit ñi coobare yàlla la dana gën a mën a xajoo xajoo ku wuuteel xajoo moom mooy di def lim jàpp waaye nangu nag keneen ci itam di def lam jàpp kon lu nit gën a xam ne islaam gën a sori jëfandikoo doole ak gànnaay ci lu dul ci lu dul lu yoon nangu ci lu yàlla kon bu ñu fexee ba tasaare xam-xamul islam nit ñi xam ko dëgg-dëgg loolu mën naa wàññi te loolu am nañ ci firnde xam nanu ci béréb yooyu jëfandikoo ngànnaay ci lu jaaduwul dafa bari buñ seetloo ña cay nekk ña ci ëpp ëpp ëpp ëpp ñu seenum ña seenuk xam lislaam xóotul ñoom lay doon ñu seenu xam lislaam xóotul ñoom lay doon ñu seenu xam lislaam xóot duñ bari lool ci ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo gànnaay jamono jii rek ku seetlu ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci yu mel noonu ña ci gën a gën a gën a bari ñu seenu xam lislaam xóotul lay doon waaye ku xamam lislaam xóot rek du dugg ci yu mel noonu ndax xamam nga lislaam mooy tax du ci dugg kon fexe ba tasaare xamuk lislaam ci biir jullit ñi bañ xam ko dëgg-dëgg bokk na ci liy mën a saafara jëfandikoo naaj ci anam bu jaaroo bokk na ci it nag ñu ñu ñu may nit ñi ñu mën a feeñal seen xalaat loolu tam bokk na ci lu mel ne am na réew yooyu dañoo doon dañoo bëgg bokk ci liy doxal réew mi ñoo xam ne dañoo bokk cim réew bëgg a bokk ci lu koy doxal te ñoom nag xalaat ya ñuy sukkandiku ñu bëgg koo jële ci seen diine ji lislaam te ca réew ma nag ñu ne duñ leen ko may ñu ne duñ leen ko may ñooñu danañ dem ba jëfandikoo ngànnaay jëfandikoo doole waaye bu ñu mayoon képp ko am xalaat ci réew mi ñu may ko mu feeñal xalaatam da koy feeñal rek bu ko nit ñi nangoo ñoo xam nit ñee ko nangu buñ ko nangut ñu xam nanguwuñ waaye nag doo feeñale sa xalaat loolu day tax ba nit di mën a dem ba jëfandikoo ngànnaay kon di may nit ñi feeñal seen xalaat bu dee ay jullit lañ ñu may leen seen xalaat yooyu ñu jële ko ci seen diine ji ñu gëm sañ koo feeñal ci wàllu politique ci wàllu social ci wàllu yépp loolu bokk na ci li mën a saafara jëfandikoo ngànnaay ci lu dul ci lu jaaduwul ndax nit buñ ko xañee buñ ko xatalee mayuñ ko fum feeñale xalaatam loola mën na koo yóbbee mu jëfandikoo mu jëfandikoo doole mu jëfandikoo gànnaay bokk na liy mën a saafara jëfandikoo gànnaay gi it mooy réew jullit ñi nag doonte doonte ak guñ ci ne dañuy àtte seen seeni àtte dañ koy tënk ci lislaam doonte ak guñ foofa it nag war nañoo bàyyi xel nag li nit ñi gëm mooy war nañoo bàyyi xel li nit ñi mooy li waxoon ci ndëng guñ bàyyi mu tasaaroo kenn du ca wax dara loolu war ta am ci réewum jullit kon donte réew mi àggut sax ci ne ci lislaam lay tënku ci atteem yépp it war naa bàyyi xel nag li nit ñi gëm mooy am na yooyu nag waru koo bàyyi muy tasaaroo ak a siiw ak a feeñ fi mu toll ndax buñ ko bàyyee rek loolu mën naa yóbbi ñenn ñi ca nañu tontoo ñu ëppal ñoom it ba àgg ci di jëfandikoo ngànnaay ak di jëfandikoo doole euh, li ci mujj ci li ñuy li ko mën a saafara waxoon nañ tubaab yi seen wàll am na ci seen wàll ñoom ñu taxaw ci seen wàll mooy ñu gën a maandu ci ni ñu doxalee jullit ñi ñu bañ tooñ ndax dañuy tooñ nag dañuy tooñ léeg-léeg dañuy tooñ léeg-léeg dañuy bañ di bañ a tooñ jullit ñi tey maandu itam ndax bu maandu amee bañ a tooñ amee loolu mën naa bokk ci liy saafara jëfandikoo ngànnaay ndax am na ñooñu boo leen tooñee loo leen ëpp ëpp ëpp doole duñ la seetaan boo maanuwul loo leen ëpp ëpp doole duñ dog di seetaan danañ jëfandikoo doole ci anam gañ ko mën a yooyu kon ay saafara la ñuy euh, jàpp nañ ne mën naa bokk ci liy saafara jëfandikoo ganaar ci ci lu jaaduwul mu am nag ay saafara yooyu am na ñu koy bëgg saafara mbir mi te jàpp ne du ñaar lañ ciy dudd bokk na ci ñenn ñi dañoo bëgg dem ba bëgg na jëfandikoo doole ci boppam rek génn ci lislaam jëfandikoo ngànnaay ak doole lañuy ñuy génn ci lislaam te mooy kon génn ci jihaad ci boppam loolu du saafara ndax jaan mënut génn ci lislaam te bu ci génnoon mooy kon dañuy bàyyi jullit ñu doyadi ñu doyadi ba ku mu neex mu ñëw jaar fu leen neex waaye saafara mënut doon ci ne nañ tàqale lislaam ak jihaad saafara mënut a nekk foofu saafara yi mënut a nekk rek ci ñiy def ñiy jëfandikoo ngànnaay ci anam bu jaaduwut ñuy jëflanteeg ñoom ci doole rek mooy kon xoolu jéemuñoo xool sabab yu bari yi ñu waxoon waaye di xool rek résultat bi rek résultat mooy jëfandikoo nañ gànnaay rek ñu ñëw ñun tam jéem a euh, jàmmaarloo ñoom jëfandikoo doole ci ñoom loolu rek doyut ndax loolu loo leen ëpp ëpp doole du ko mën a jeexal waaye li ko mën a dindi mooy sabab ya ñu jëm koo dindi àddina si nag fi ñu toll ñu ci baree bari li ci ëpp jëmu ñoo xol sababu jëm ko safara saafara dañuy jakkar lok rek ñikoy def japp ne man nañ leena man nañ ko safara ci doole rek ñoom itam te lolu li ñu tuddee cercle vicieux rek lay jur moy day wër rek bu jeex mu ndax bu fekke ngannaay lay jëfandikoo yow tam ngay jëfandikoo ngannaay ne moom da ngeen di wër rek waaye du jeex mu te adina ci ag na fo xamne lo ëpp ëpp doole nit mëno dema dema dema dem ba mu ne la tuub naa ko tuub yi bi li nga bëgg li ma doon def defatuma ko kenn moo tam loolu lay lu ëpp ëpp doole nit du bàyyi mukk kon li tane mooy jéem a fal sabab yi waaye li ñuy tuddee euh, doole kese kese mënu koo faj ñoom doole lañuy jëfandikoo ak ngànnaay waaye jëfandikoo doole ngànnaay kese it mënu koo faj mënut a ñàkk ñu xool sabab yenn ca ginnaaw jéem a faj sabab yooye jéem a saafara saafara sabab yooye loolu sëñ Mamoor foog naa mi ngi toll ak waxtu loolu foog naa mooy dañ bëggoon a tënk ñu xam ne kon jëfandikoo ngànnaay moom ci turu lislaam lu am la lu am la lu am la kenn mënut a weddi am na waaye ñu xam ne it am na ci lu jaadu lu jaadu lu yoon maye loolu kenn waru ko fee jéem a jële te mooy jihaad ngir aar sa bopp aar sa alal aar sab der ba nëgëni ci jullit ñi am na ñuy def loolu jihaad jooju am na ñu koy def waaye ku ne xam ne it am na ci lu jaaduwut te mooy jëfandikoo ngànnaay ci lu dul jihaad ji lislaam tëral geneen anam gu dul jihaad rek bu jaaduwul la yu jaaduwul nag warees na ko jéem saafara waaye saafara si dëgg-dëgg mi ngi dellu ci jaare ko ci sabab yi jéem xam sabab yi jéem a saafara sabab yi bu ko defee mu saafara ko suñ ma moor loolu la bëggoon tënk maa ngi jéggul nag bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh